asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu mbokki internet ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen eh, di wax ne tey jii indi leen indil bayre bu yéeme yéeme yéeme bu baax lool gaaw si ubbi si may nit mbooloo si may nit lépp lu muy sàkku balay loolu ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen abonné si suñ chaîne YouTube nga xam ne si ni bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko nekk ay njariñ ngeen mën ko am waaw kéefeer bi ñu ngi ko liggéeyee si Zeyna Linaas yi ak Yawoudoudou da ngeen di bind Zeyna Linaas yi 99 ngeen teg ci yaawa duudu 99 soo leen paree ngeen bind xaatim bii ngeen di gis ngeen wërale ko tamit yaawa duudu si digg bi ngeen def seen tur soo leen si noppee ngeen tëjee ko ak allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim waaye nag saafara bii day ànd ak ak mawar zafran sungu fi timin timin sungu fi was wasoor ngeen sangoo ko 21 jours incha allahu taala li képp ku ko def bu soobee yàlla yonent bi da nga gis yokkute bu rëy si yow bàyyi rek nit ñi dinañ la jox bopp nit ñi dinañ la wuyu te lépp lay sàkkatu pour yàlla dana si defal tawfeex incha allah baax na ngeen abonné si suñu chaîne YouTube ngeen partage vidéo yi jërëjëf képp ku ñu soxla si ay ñaan wala si ay leeral wala si ay tegtal ngeen woo si numéro yooyu baax jërë ngeen jëf